nuyu leen leen ziar leen yéen ñi di ñu suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu ci seetaan bi ngeen ñu seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc Gambie Mauritanie partout dans le monde fu Sénégal nekk di suivre 4appuis rek nuyu leen la ziar la comme ni ñu koy defee toujours rek ñu ngi waat fii Pikine ci écurie Falaye Baldé seet si fii Jules Baldé fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ci actualité làmb waaye tamit mu joxe xalaatam ci combat yi nga xamante ni fësale nañ ko ci saison bi boo ci boo ko ci ci gën a fës combat euh, Balla Bombardier mu joxe ci xalaatam dañ ko nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu si ñu dugg bi Jules ziar naa la. asbillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf sëñ Fallou waa ñu sant yàlla ba julli si bi sant suñu ñaar waajur sant suñu seen atteex Mbàkke yàlla nañu yàgg te wér yàgg seen njaboot sëñ Fallou gi yëpp incha allah jërëjëf waay ñu leen ziar di leen màggal. am na solo Jules euh, comme ni mu ko waxee ci début bi rek Balla si signé na trois contrats Bombardier Gris ak Boy Niang noo gisee contrat yu tegalantoo boobu con contrat yu tegaloo yooyu noo gisee. waaw contrat yu njëkk ba mbër bi dem fin carrière moo ko doon def jëlee trois combats yooyu pour defar fin carrière am waaye nag bi nag xam naa lamb nag moo toll période boo xam ne gars yi jëlee trois avance waaye mu njëkk ba moom mbër bu doon dem fin carrière moo doon jël trois avance waaye léegi lamb ji moo sens moo tax gars jël trois avance. Hmm. yow sa carrière est ce que mas nga tegal deux deux deux avance en même man benn avance balaa ma ko am damay métti ndax gars yi ñemuñu woon balaa may am combat wuu man dama def année blanche trois ans trois ans daay def année blanche gars yi de da nga doon xeex wala da nga bëri wala nga amoon loolu. naa bëri mën naa xeex. waaw loolu moo tax te toll moo ni mbëri quoi. Mhm. te mbëri bëri lay sóor naan waa kii ni mu toll nii bu ma daanee. Mhm. dana am gàcce ndax fa tuuti. Mhm. ñëw la woon quoi. moo tax ñeneen ñi woo ma ñeneen ñi dem leen daan mbappat. Mhm. ba mujj ñematuñ ma. ma loolu moo tax mu bëreetum fin carrière la commencé balaa brouk si gala. Mhm. boo la quoi. fin la. Mhm. am na solo kon loolu daal day yokkute la. ah contrat yu bëri la yokkute la. am na am na am na am na am na euh, maanaam jafe tuuti. ban jafe-jafe am. suñu xoolee la. trois combats day mel ni tournoi la rek comme tournoi TNT bi ñoom amu bokkoon. waaw tournoi la rek ngay bëre kii pare bëre kii pare bëre kii pare. bare bëre kii comme tournoi la daal tournoi la waaw. Mhm. mais est que du du pression bi du du bari ci côté ci côté Balla la. fekk bu jëloon trois. non tournoi boo ko de boo ko jëlee tournoi boo ko jëlee. trois mbër la. waaw mbër bu nekk mhm. waaw kon loolu du am pression. Mhm. tournoi la rek. léegi Balla pour yow ñett adversaire yooyu Bombardier Bombardier Gris ak Boy Niang ku ko ci gën a nar a problème ci ñoom ñett. non lamb ji. xam nga ni bu wóoloo boppam ba jël ba jël dara rek. comprendre mhm. am na am na fu mu am am na fu mu ko teg. bu ko tegloon feneen kon du neex am na fu mu ko teg. Mhm. gëm na ne tur nii mun naa leen daan ñoom mhm. ñetti mun naa leen daan. ndax gëm-gëm la rek moo tax mu jël ñetti avance. bu gëmuloon loolu kon du jël ñetti avance. mais koo xalaatee ñoom ñett kooku moo ko ci gën a nar a kooku moo ko ci gën a nar a sonal ci ñett adversaire yi. fii combat yi muy bëree yëpp combat yi métti la moom Bombardier revanche la. moo moom Gris Bordeaux revanche la kii kala booy booy booy bu war a dem la mu doon ñetti combat yoo xam ne ñetti combat yëpp ay la. Hmm? waaw. Hmm. bu njëkk ba lan moo lan pour yow moo waral euh, jël amu ci sut amu ci. combat ba moo giri mooy. Balla Gaye sóoruloon giri. Hmm. ndax bu dafa yaakaar ne bu ñëwee day jàpp ngembul giri waaye nag lañ jàpp ngembu giri. loolu moo tax làmb ja mënu la egg. façon bi giri ngemboo. façon giri ngemboo. Ah, Balla mënu ko mënu loon jàpp ngemb da bu jàppoon ngemb li làmb jeex ngir loolu la xam mhm. moo tax mu tëj ko fa Balla mënu jàpp ngemb la mhm. léegi Balla bàyyi fa bëri bi indi xeex bi bàyyi fa bëri bi indi li nga xam Gris Bordeaux moom lay indi xeex ba mhm. mu démine ko si xeex ba combat bi ñun nag ku nekk ku nekk am nga loo wax sa morom Balla nee na bii paa na ko daan ba toog ci kawam mais d'abord ba la ñu egsi ci question boobu Gris lu tax daan daan ko jël bu leer ba toog ci kawam loolu jafe Gris pour yow waaw no Gris jafe lu daan moom leer Eumeu ko daan moom leer nañ waaw mais bariwul ay jëlam néew na quoi lu ñu ko daan ba mu jël bu leer ba nga seetaan rek moo tax waaw li nga seetaan si giri ah <laughs> yow da ngay seetaan bu ñu ko daan moom jël bu leer la giri bëri bëri deuxième combat yëpp premier combat yëpp fa lañ fekk ah. fa ñoom Samba Diagne ñooy wax giri mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Ah, jël bu leer na dégg non giri moom xam na baax xam rek am na yoo xam ne nag waaw ah. lu toppaat nit ko nii carrière am nii nii waa ne xam na quoi mm-hmm. léegi Balla Gaye dina ko daan jël ba toj ci koom Gris Bordeaux da koy dur mu daanu te combat bi du yàgg. waaw xam nga xam nga Balla Gaye moom da koy daan jël bu leer Gris Bordeaux da koy dur mu daanu yooyu yëpp signature la rek. li am suba moom yàlla ko xam waa ni que ni que ni que conseil ni que conseil am lay lay dese quoi. waaw mm-hmm. conseil am lay yem. Mm-hmm. léegi combat bu njëkk ba. su bu giri ngéemoo comme ni mu ngéemoo woon ci combat bu njëkk ba. est-ce que nga foog ne combat bu njëkk bale pa bale ba ba ñu bëre paaka indi woon. waaw lan woon paaka la indi woon. waaw pour indi ko. waaw muy pour bi xaw a dëgër bi bi ñëw jaasi la indi. day indi jaasi. ba Balla Bombardier. Balla Bombardier Bombardier da ko naxoon daan ko. Mhm. comprend Balla moom ko day day day fayu. Mhm. te ku la daan ku ne da ngaa bëgg a fayu. waaw loolu mooy lamb quoi. Mhm. mais am na ñu ne combat Balla Gaye trois combat trois adversaires am yooyu. boo ñaa moo ko ci nana gën a sonal démb de sa sees naa Batikaam wax lu mel noonu ndax façon bi muy bëree te d'accord nga ci loolu. noo xam nga ñoom ku nekk rek. sa mënin doo ko bàyyi. Mm-hmm. kii lii la mën a bëree kii nii la mën a bëree kon làmb joo kon day neex dañu ñaar duñu xaar kon làmb ji gaaw a jeex la. làmb ji gaaw a jeex la mais façon bi boo ñaa di bëree façon bi Balla Gaye di bëree dafa dafa arrangé boo ñaa loolu loo ciy wax la gaa yi wax. li yi wax moom seen posé na question lay wax mais Boy Niang ni muy bëri ni Balla Gaye bëri da koy arrangé Balla Gaye moo xool ni Boy Niang bëri. da koy arrangé. waaw ku ci nekk ni muy bëri dafa arrangé sa morom. arrangé sa morom. Mhm. am na solo mais ñu gis ne Balla ak Boy Niang Boy Niang dafa dugg géej waay lu bari bari bari ba daan rakkam sax gis nga foog ne Balla loolu du nekk du nekk côté pression ci côté Balla. bal la doonul mbër boo xam ne mbër bu ndaw la boo xam ne day toog mhm. yenn pression mhm. kii daan sama raq wala nangam sax ah. mu doon pression si boppam ndax ku dem ba day Yékini ku dem ba day Yékini day Tyson amoo pression boobu day tafaatin kon yaakaar naa doo am boo xam ne dans nga bugg am pression mhm. loolu la lamb la rek foofu lañ jeexalee ci question ci combat Balla yooyu Jules Baldé yow mi yàlla def bëri nga bëree ba bàyyi bëri instant bii def lu nekk si làmb tamit tey boo doon euh, jox Balla Gaye stratégie ci trois combats bi yooyu noonu bu ci nekk noo ko ciy bëreloo. non loolu moom du waxut dama ko du mun ñu ko mhm. moo dem bu jëm ba responsable bi jël trois trois combats xam na mu war a bëree moom loolu ma entraîneur am. léegi am benn conseil boo ko jox ci ku ci nekk. ñoom ñaar amuñu conseil conseil mooy entraîné boo kong rek. Mhm. mooy conseil bi. pare ñu bañ a rusloo amateur bu ñëwee nañ def fula la am ba jeex ñu jóge loolu laa loolu laa gis quoi. non Balla may combat ah, kon jeex na. mu ci bu muy Bombardier bu boo ñaaree bëri fula tey boo doon conseil Balla Gaye loo koy conseil yow du ma a bëri. du ma mbër xam nga du ma mbër. yaa doon la. a journaliste mbër. ah journaliste doon mbër affaire lamb. non Jules lañu si daan bëri ba nekkee daawoo bëri yow. Oh, waaw ñun ñun. damay laaj ba nga nekkee daara da nga doon voilà kon de kon xam nga bët xam nga cabaxal xam nga ah. galgal xam nga ah. xatar bi ah. xam nga njiin xam nga mba colcolal xam nga mhm. kon non xam nga man tey yow yow yaa ma gën a yelloo wax loolu parce que yow da nga bëri ñëpp si la nga bëri nga pratiqué ko waaw kon kay yaa ma gën a yelloo ci wax ci côté boobu noonu mën nga ne loolu laa ñu kal dafa am foo wax dafa am foo xam wax ji foo xam ne duñ ko duñ a egg quoi hmm. foo am foo ne fay close am na du yore armam wala nga nga bu koy wax lii lay bëri wala lii lay bëri hmm. doon entraîneur am loolu hmm. naay sul quoi loolu naay sul am na solo ñu gis na Boy Niang da ngeen relation yooyu ñaar yéen a bokk seen Pikine Boy Niang doom la man Balla raq la si man côté boobu nan la Jules taxawee ci combat bi est-ce que ci moom waaw combat combat bi non du compliqué ci man du compliqué ci yow noo ci fas yéene taxawee. ñooy taxaw ñoo seetaan ci comme ñëpp rek. amul koo ci jàppale ñoo ñaar. non du ma dama ñëw seetaan ñëpp ñoo toog seetaan ci. am na solo le fi may mujj eh, non loolu sax nañ ko bàyyi ba deuxième partie bi ñu yemale foofu première partie bi.